di sakku ci yéen ñaan di leen ñaanal daje bi ñu ñaan li suñu borom jige lépp mu defal ñu ko képp ku fi teew képp ku am yéene te mënulaa teew képp ku fi yeble suñu borom boole la ci bis bu tedd la mu ngi mel ne téeba ci baykat yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa ne ala inna li rabbikum fi ayaami dahrikum nafaxaatin ala fataarradu laha seen borom day am na ci bisi seen jamono yi ay tabe yu muy tabe di fëkk di joxe di tibb di sànni ni ngeen fexe ba taatanu ca ngëneel yooyu muy joxe di sew di bis yu suñu borom sànn loo ci jëf ñu ful ko ful bu ëpp boo jëfoon jëf jooju ci beneen bis bis yu mel nii ci la bokk ndax alquran mooy li gën a rëy te gën a fonk ko suñu borom ci li ñu teg ci kaw suuf ndax melow suñu borom la du lu ñu dund xam ngeen xissa al imaamu ahmad ibnu hambal ci bi ñu ko bëggee wax loo ci sorte ne ko neen alquran mbindeef la li ñu bind la te ulama yëpp xam ne alquran bi mbindeef melow la ci melow suñu borom tabaraka wa taala لم تقترن بزمان وهي تخبرنا عن المعاد وعن عاد وعن إرم القرآن لكم ولا جمل ndax mooy jiitu jamono suñ borom bind jamono bind bërëb te bum bindagul dara alquraan yi ci war suñ borom ñu ngi koy faral di waxee amul jamono amul bërëb nekkul ci jamono nekkul ci bërëb meloom yëpp it amul ci nan meloom yu sotul lu ci nekk naka jëkk la ci nekkoon alquraan di saafara ràggu xol yi mbindeef yëpp raggu dëng alquran koy saafara raggu sàggan raggu fàtte sa borom raggu sori ko raggu bu wan ko gannaaw jublu adduna lépp alquran mooy saafara si loo tax sallallahu alayhi wa sallam rek kun aaliman aw mutaalliman aw muqtanaan aw muhibban lahu wala takunu xaamisata sa tahlika nekkal di borom xam-xam wala nga nekk di nit koo xam ne foo toll day sax da ngay sàkk xam-xam sàkk xam-xam nag façon yu nekk la mën a dikkee déglu wax jàpp ko sàkk xam-xam la nga dégg ci ko ci ci toog di ko wax wala nga dégg ko ci rajo wala télévision wala jumtuwaay bu mën a doon wala mën a kon kon boo nekkul di aju xam nekkal di aju sàkk xam-xam nga yem sa xam aw muskane an wala nga koo xam ne bu ñuy wax xam-xam nga déglu wax ci lépp saatam sa xol di déglu li ñuy wax boo ko mënul defee aw kun muhibban wala nga nekk koo xam ne sopp nga ñuy jàng ak ñuy jàngale ak ñu xam ak ñuy déglu dafa El Hadj Ibrahima tuuti ne kun aaliman aw mutaalliman aw mustamian aw kun muhibban li zawi jàng ne alquran ci la dal yem ci alquran mooy barket adduna ak àllaaxira moo téye suuf ak asamaan lépp alquran boo téye itam dundu doomu aadama mboolem aspect ba mu ci dundu aadama alxuraan indi na saafara rab bi ko mën a am ak la ko mën a yàq xam ne la ko mën a defal gannaaw dañu ne suñu borom dana yëkkati musiba jëmee ko ci réew benn xale bu ndaw bu ñu dalal alxuraan mu jàng ne baax ci ñun rek suñu borom wëlbati musiba moomu dañ koo teg réew moomu ngir barke xale boobu di jàng alxuraan kon lu ma ay junni dongo di jàng alquran su ñu nekk taxaw fa barke la mën na fit ci bàkkaar yëpp mën na jox nit jafe goo xam ne leneen dootu ko mën a dindi ci kaw yéeneen di sell moo tax shaa'ir bi laqad xaqaqa an yuhda ilayhi karamatan bi taalimi xarfin waxidin alf dirhami yàlla na ku la xamal yenn xarfa nga góor góorlu dajale alal ñaq ba am junni dërëm te bañ ko wax na dërëm toll woon ci xëyma nga jox ko ci la xamal yenn xaraf woowu kon lu ama am solo la sallallahu alayhi wa sallam ne xayrukum man taallama alquran wa allamahu ci gën ci yéen mooy ci jàng alquran ba xam ko di ko xamle kon bu fekkente ne dañu ne alquran moom rek koy saafara lépp te dara desul mooy saafara xeetu yonente bi sallallahu alayhi wa sallam te sallallahu alayhi wa sallam aw kama qaala alayhi salaatu wasalaam sama xeetu diine dañ diine ci jàmm ak yiw ak yoonu mucc fii ñu ngi jàng alquran kon bis bu ñu ko bàyyee leneen mën na am sallallahu alayhi wa sallam ngir wane màgg xam ak yita xam saa yu njëkk wàcc ci moom ko xalaat da ko xalaat bismi rabbika lezi xalaat jàngal waaye ci sa turu borom boo jàngee ci sa turu borom nag li nga jàng lépp day jënd ci ngir yàlla boo jàngee ngir xam-xam rek xam-xam rek ngay am boo jàngee itam ngir barke rek barke rek ngay am boo jàngee ngir mën a xam adduna nopp ko xam xawaati bi maanaam reede bi nga xam ne moo régir suuf si ak dund gi xam ko ba mën caa jëriñu mën a def iktisaas maanaam mën a def ay découverte yoo xam ne day jëriñ nit ñi ba nga jóge ci lu yàgg muy jëriñ nit ñi loolu nga ci am bu fekkee bisiloo ko ngir yàlla loolu rek nga ci am ñu di la tudd tur rek nga ci am bu fekkee da nga ko defoon ngir yàlla nag day daal di fekk ak sadaqatu jaariya nit bu deewee jëfam yi yëy na la mu dund di jëf jëf yi di ko fekk te bàmmeelam ba faaw noonu lay daal di mel sallallahu alayhi wa sallam ba tey gannaaw loolu bu ñu xaree badar ba nag dàq yéefar yi jaam yi ñu jàppoon ku ci amul loo jotoo daf naan la nga jàngal ci doomu jullit yi ci fukki nit ba ñu fekk ji xam ne kon jàng mën a bind rek mën a liir lu ama am solo la ci lislaam kon alquran gannaaw mooy dund ak gëm alquran ñaaxe na bataay yi ci nañuy settantal aayaan te xam-xam yi ci nekk kenn xamul ñu toll te féeg nit ci xolam na ngi set féeg mu ngi am xol bu set du bëgg yàlla du doole mukk ci alquran ndax da koy gën a dégg di ko gën a xam di ko gën a sopp moo tax alquran ne كأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون bari nag saaw suuf suñu borom yoo xam ne dañ leen koy romb ndey joor ak càmmoñ ci kaw suuf ak ci asamaan ci bu leen ca waaru te waaru li koy indi waaru rek mooy sama bu tefe ndax buñ demee ba ne toog sa béréb di xalaat li ci sa kanam say jaar jaar séeréer li nga yàlla séeréer ak ñeneen ñi nga xam ne gënul leen leen te suñu borom xañ leen ko jox la ñaari bët am ñu ko xañ jox la ñaari tànk am ñu ko xañ jox la looy añee wala looy reere am ñu ko xañ may la wér yaram am ñu ko xañ ngay toog di xalaat yooyu mooy tax nga gën a sant suñu borom ci loolu ci loolu la sa ragal yàlla di gën a màgge ndax ragal yàlla mu ngi mel ne jur boo yor di ko xon di ko yafal di ko sang di ko toppatoo day gën a màgg di gën a dund loolu la ngëm gi suñ di gën a dëgëre ba nga xam ne nit ki suñ toll day yëpp suñu borom yëpp goo xam ne day mel ni mu ngi jàngoog moom bu ko defee ci yëpp googu la koy tere lépp lu ñu tere day nit di bëgg xolam ak cëram doo ci bëgg loolu daf koy séexlu ndax sell bi nga xam ne moom la xolam sell ndax tafakkur boobu dañu wax xam ne tafakkuru saa yi xayru min ibadati sanati xalaat benn jamono rek moo gën jaamu biiru jamono ñu ne moo gën jaamu ak alquran daañu ko yëkkati bi daañu ko nangu ji ci benn doomu aadama yi loolu lu mu doon bu dul duñ fekk ñu xamoon ñu rocc ko ci ñoom ñoom nag mën nañoo sàggan ba fàtte waaye ñu ngi ko yëkkati see dinaa jibril alayhi salaam dana dellu si ci adduna bi foof foof ngir jël ci alquran li koy waral moo di ñi ko xamoon dañuy dee kenn du ko jàng ba mokkal ko su ko defee alquran des ci biir téere yi waaye du ci nekk ci benn doomu aadama yi téeg loolu amul nag musiba mu mag ni ñuy séeni ñu yonent bi sallallahu alayhi wasallam digee te di ñaan nit ci cër ba mu ci nekkee ba léegi téeg dindi ñu alquran musiba moomu di ñëw waxoon naa sànq ne xale bu ndaw di jàng ba ci ñun rek danga tax suñu borom wëlbati musiba moomu waroon a tëgum réew kon li alkaarij bi kubra musiba mu rëy rëy rëy balay ñëw rek nit ñi waxee ci alquran alquran for bu kifaaya la waaye for bu kifaaya boo xam ne dafay taxaw taxawaayu lépp bu fekkente ne nag doomu aadama ñaar koy jëriñ al ilm wal amali xam ak jëfe ndax bala ngay mën a jëfe da ngay xam li nga xam xiimay li ngay jëf boo ko teewloo na muy def ci xol jëriñ la ak ban tuyaaba la lay jox ak nan la lay maye ak nit te loolu yaa ngi koy xamee ci tafakkur boobu mooy li ñuy wax méditation ci tubaab xalaat la ñuy lay xalaat bu boo demee ba sa xol commencé leer commencé set jaamu yàlla boo def da nga dal di xam lu mu la jëriñe ak lu mu la jëriñe nga dal di xam di gën ci yow ndax nit ñëpp bokk nañ ubbil ci jaamu yàlla yëpp dafa amoon benn suuf yi di bind imam Malik ne ko yow Malik ñu ana ñu ngi la lalal lal yu nooy teg ci ay drap d'histoire nga amee ay bax la yu rafet ak ci ci ñaari góor di ko war nga amee ay jaan yoo xam ne nit ñi lañu yoo xam dañu leen sàpp ñu nekk ci sa service nit ñi di jóge ci délégation yi réew di la ziare si di la laaj ay masala nga di leen ubbee loolu day lu baax a baax a baax la ndax dundal diine la xam ne diine la waaye bu fekkoon ne da ngaa wacc adduna ak lépp ñu koy xeeñ dugg ci àll bi ñëw ne man nekk ci kaw doj yi di xiif di mar di dund ci xobu garab yi di naan ci suux yi ak déeg yi di jaamu sa borom dara ba nga dox sa diggante sa borom mooy gën imam malik tontu ko ne ko dégg naa li nga la wax maa ngi lay gërëm di la sant ci laa biire di nga ma laa biire li nga wax am na solo lool waaye nag bu jàpp ne mukk loolu nga nekk moo gën lii ma nekk ndax suñu borom dafa séddalee li ñu séddalee wërsëg yi noonu la séddalee jaamu yàlla yi am na ñoo xam ne ubbil nañ leen jaamu yàlla ci julli waaye ubbil ñu leen dafa ñu leen sax xam dafa ñu leen ko ci koor dafa ñu leen ko ci jihaad ak ñoo xam ne ci defaare xam-xam rek lañ leen ko defee waaye li ma nekk bu ma ko bàyyi woon ak ñeneen ñu mel ne man ñëpp diine réer te kon ñun ñëpp ñu am bàkkaar te yow li nga nekk am na ay sàrt xaw ma nag mat nga sàrt wala déet ndax bala ngay mën a def islailement maanaam dara ci sa àll wa ci nit ñi la fekk ne mujtama bi maanaam société bi aajo woowuñ la ngay koo xam ne da ngaa war a jàngale wala nga war a faj ñu feebar di docteur wala ngay koo xam ne da nga war a jiite julli te amul jëne yi limaam bu fekkee ne te itam dëgg bi ngay dëgg nit ñi du rëy taxul te itam dana la jëriñ ay xalaat yu rafet dana la jëriñ ak jaamu yàlla bu fekkee ne matal nga charte yooyu kon al ujlatu maanaam seulement dana jaadu ci yow dana dagal waaye boo ko matalul kat yooyu yëpp dara du ci dagal ñu ne nag gis yi li ci gën ñu ne gis bi gën ci jëf yi mooy gis bi ëpp ci njëriñ xam xam-xam boo xam ne jàngal ay nit ñoo jàngal ñeneen ñoo jàngal ñeneen jàngal ñeneen ñu jàngale wala ñu di jëfee lañ jàngale wala xàmmeel jëf yooyu daf koy fekk ci leneen lay dund loolu mooy yàlla boo koy bëggloo yàlla boo koy ragalloo dëgg dëgg ragal yàlla loolu li ñee jëf bi nga xam ne nit ci togg na ko boppam te mu naqari ci bakkanam mooy jëf bi gën ci jëf yi kon ñu mu laale ci tam insaati li shaxsi faxila ñi ci aji nay muy li ci def ci yoonu yàlla ñu joxe ko ci koo xam ne yàlla mu def ko kooku nga xam ne dafa nay li li ci benn dërëm noonu la diise ci moom joxe alal moo ëpp doole ci moom naa ci la julli wala naa ci la koor wala la ñuy def ñi ko ci nga xam ne itam nag dafa am loo xam ne lii lu tiis ci bakkanam la mooy ñu tooñ ko bale suuf tiis ko mu bale loolu moo ëpp doole ci moom julli gannaaw farata yi ëpp doole ci moom koor gannaaw farata yi naka noonu itam lépp loo xam ne lii dafa tiis ci bakkan nit ci muy adduna bëgg la yëkkati nga sikki ci wàcc ci suuf wala ñu jox la daraja nga bañ wala nga mën koo wut mën koo am def la ko loolu yëpp nga xam ne ci ñeenti noonu yi ñuy wax nafsoo seytaan ak xawa dunya ñoo koy ñoo ci xiir bi ñu bëgg koo alak li ci nekk boo ko seetloo mu naqari sa bakkan nga gis ko gis bu am solo nga gis bu am tiyaaba du bari tiyaaba joo xam ne dana tax dana la tàggat ci nag sa bakkan ndax bakkan mooy li yàlla mooy yàlla ji yàlla gën a bañ bi ñuy jaamu ci ci lu dul yàlla maanaam sa mooy sa noon bi gën a aay ci yow ah daa am li ko nag ba nekk bay nga jël bay ko yaakaar naa ne mu ngi ñaar gannaaw programme bi dafa xat mën nañoo dégg rek ci benn programme bi mu taxaw ni parce que waxaat boobu benn ni وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. كل جنة بطل شيطان daf lay ci dugal ci loo xam ne sax amuloo ca bànne amuloo ca alal
وقد نزل على عليه وغير المغضوب عليهم